asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu a ah, yéen ci uraasul iraada yépp ñoo ngi leen di nuyu ah, a ñëw léegi ci leçon alquran bi waaye dañoo bëgg a def benn tan bi ak irshad bala ñoo ñëw ci leçon alquran bi tan bi ak irshad bi ñuy def nag dañ koy def ci diggante ñaari jëmm te ñoom ñëpp dañoo nekk ay guide spirituel benn bi moo di ki dem ba xam lànk bañ a wax benn bi mooy ki xamut ba noppi tey bëgg a wax boo gisee nag may de waxtaan wi dafa am loo bëgg leeral ci cheikh muhammad arrifaa'i wala ahmad arrifaa'i moom cheikh muhammad al fadil loo gis daa am lu tax mas naa leen a nettali ne leen man sama waajur waajur muy sama maam yàlla def ko dénkuloon njaboot ginnaaw ba mu jébbaloo te sax naam am na ci bokkam ku am xam-xam bu ñuul ku ko waxoon ne boo amut ku la doon mu doy euh, mu toog diir boo xam ne yàgg na te loola mel ni luy bëgg a am mu dem ci sa Moustapha Mbacké ne ko man de dama am ci samay kilifa néeg ndey koo xam ne boroom xam-xam la te daf maa wax ne ginnaaw dem nga tuubi nekk ab murit boo amut ku mu doy mu ne ko Cheikh Moustapha ne ko ah mu ne ko waaw mu ne ko mu duggee kaa dem yow looloon nga ma ko yàgg a wax di mosa naa leen ko nettali ba mu demee fekk sëriñ bu mag bi ginnaaw tàkkusaan muy jàng alxuraan ñu toog ba mu jàng ba eggal ma nga yore gaal gunu buyaade wéet wéete ko càmmoñ buyaade mooy jël ñu yett ay fleur ak yu demee noonu yett ko ci përëm wala ci xànjar daaj ko ci gaal gi rafetal ko mooy buyaade ci baatu wolof xam naa ne kon mooy décoré ji bi di wax buyaade la ko maam yi doon wax ba mu ba ko Cheikh Moustapha Mbacké waxee Serigne Touba da koo gees nu ka sëñ mu diggee waroon nga ko yàgg wax loolu di daal di gaal ga jël seen ñaari eh, bul yu mel ni ay buleet waaye yàpp wu ñu seel muusal ko weer ko ba mu wow ñu daggat ko mu toll ni ay doomi gerte moom la naa di daan jël boole ko ak tàndarmay ndàbb dëbb ko dank ko mu def ay dank ñu def ko ci mbuus def ko ci gëléem bi ko jël sëñ tubaab fa njaarim mu di ko jox gone yi ndaw yi ca la jël ñaari do ñaari da ñaari dank euh, daa di ñaan di ëf di ñaan di ëf di ñaan di ëf peegal jox ko mu duggee mu daa di ne ko lekk ko fii nga toog mu lekk ko ba noppi ñu toog lu yàgg mu daa di muñ ne leen ñaan gi yegg ne di mën ngeen a dem ba mu jógee ba woon ko ginnaaw ba dox juróom-ñaari jéego dafa wax sama maam ne ko ma duggee mu wëlbatiku ne ko mbàkke mu ne ko boo amee doom ji góor na nga ko tuddee fallu mu wax ko baat boobu yàlla may ko sama baay mu tudde ko Sëriñ Fallu amaat na jeneen doom ji jigéen tudde ko soxna Mati Dia doomi sëñ Mor Jala Yaabe muy ñaari ndànk ya fa la yem eh, moo ne boobu Bachirou nga fa yeneen tur yee fa waaye Sëñ Tuubaa da ko ne boo amee doom ji góor na ko tuddee Fallu na nga ko tuddee Sëñ Fallu man sama baay Fallu Mbàkke lañ ko tuddee man nag Daaru Xudoos laa bokk waaye waa kër Sëñ Fallu ñi dama la bëgg a sàmm ci sama xol ba ku ci dugg ci nag seetlu noonu damay daal di kataaru ci sa kaw duut ma la xool saxati waaw waaye nag ko ci xam ne yaa ngi ci ci yoon wi nag dama lay wax après waaw góor bu bul bul wàcc demal te wéy sëñ Ahmad Rifaay yi dafa dafa bañ a bokk ci ñaari mbooloo yii mooy mbooloom yahud yi ak mbooloom nasaraan yi te sëriñ si am na ci yéen ñoo xam ne ci mbooloom yahud yi lañ bokk am na ci yéen ñoo xam ne ci mbooloom nasaraan lañ bokk te Cheikh Ahmad Rifaa'i bu sàgganee ngeen ko boole ci ñaari mbooloo yooyu te waru ci menn ndax doonu ko ci ndey doonu ko ci bàyyi yàlla dane qul a qul a unabbi'ukum bi sharrin min zalika masubatan man la'anahu llahu wa ghadiba alayhi wa ja'ala min umul qiradata wal qanasir wa abada taaxuut ñooñu ñan la ñu yàllay wax ne ndax duma leen wax ñi nga xam ne ñoo gën a bon ak dellu fa yàlla te mooy ñi nga xam ne yàlla dafa leen rëbb mere leen yemu ca mas na cee soppi ay golo mas na cee soppi ay mbaam xuux te li ëpp ci ñoom ay jaamukati xirim lañu ñooñu ñooy ñan ñooñu ñooy yahudi yi yàlla del wax ne alam tara ila alladina tawallaw qawman qadiba allahu alayhim ma um minkum wala minhum ndax gisu ñi nga xam ne dañoo méngoo ñoñ yàlla daf leen a mere te ñi nga xam ne dañuy méngoo ñoo xam ne yàlla def leen a mere méngoo ga ñuy méngoog ñoom du tax ñu bokk ci ñoom waaye bu dee ci jullit ñi lañ bokk génn ñi ñooñu yàlla mere ñooy ñan ñooy yahud yi yàlla del wax ne daraba la duribat alayhimu zillatu aynama suqifu illa bi hablin min allahi wa hablin min annaasi wa baa'u bi ghadabin ala qadab ñooñe ñan la ñooñe yahudiya lañ mu dellu wax ne wa baa'u bi ghadabin ala ghadab ca baqara juróom benn fukk ak benn la yahudiya lañ mu dellu wax ne wa baa'u bi ghadabin ala ghadab ca baqara aaya juróom ñeen fukk ñooñe ñan la yahudiya la lan moo tax loolu dal yahud yi xam lànk bañ a wax loolu sëñ ahmad rifaa'i du lank bañ a wax loolu sëñ du ko def ndax loo baax baax di ab jullit di ab sëriñ di ab guide spirituel doon lu diine ci say maam jàng ba ne ar fab sa àllu bët ne ko tegg fee di dàq àddina utab dërëm noppi bañ a wax donte ñu ngi lay sukkat di la raamal yàlla ab yahud la la jàppee ndax ab yahud dafa xam dëgg noppi bañ koo wax te loolu daa waral meram yàlla ku ko ci def ci yéen sëriñ si yàlla dina la meree ni mu meree woon yahud yi ndax yahud yi la tax yàlla joteeg ñoom dañoo xam dëgg-dëgg ci seen tànk di def ay tappale ngir seen intérêt àddina samanan qalilan la tastari la tastari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bidduja fa sayandamu xam lank bañ a wax dëgg sa tànk di topp say intérêt loolu la yàlla mere yahud yi Cheikh Ahmad Rifa'i bu xamee lank bañ wax yàlla da koy atti comme yahud yi ku ci nangoo féete yahud nag mën nga caa féete du problème ñu dem ci nasraan yi yàlla na la xadd kafara alladina qaalu inna allaha salisu gaa yi ñetteel yàlla day ñoom weddi nañu ñu taxal yàlla teg fa keneen nag ñooñu de xaw ma fu ñu jëm ndegam ñu saxal yàlla dendale ko ñaar ñoo di yéefar ña fopp ñëpp sànni ca xàll ba foppaale yàlla nag dellu ne qul yaa alal kitaabi laa taxlu fi diinikum gayra aqi wala tattabiu awa qawmin qad dallu min qablu wa adallu kasiran wa dallu an sawai sabil yéen ñooñ téere te moo di nasaraan bu leen ëppal ci seen diine topp bànneex ab ay gaay yoo xam ne dañoo réer lu jiitu réeral ñu bari réer ci yoonu njub ëppal nag ñaari façon la romb fi nga war a yem taañaañal ca kenam ëppal la ñëw ba di ko jub bañ faa egg it ëppal la ndax da war a yem ci digg bi yahud yi dañoo arrière ba wàññi ndax dañoo xam bañ a wax nasaraan yi dañoo ëppal ndax dañoo xamut di tegalay wax di dem alxuraan ko wax yàlla def ne yaa alal kitaabi laa taxlu fi diinikum wala taqulu ala llahi ila alhaqa inama almasihu isa bnu maryama rasulullahi wa kalimatuhu wa kalimatuhu alqaa ila maryama wa ruuxun minhu waa kër isa dañoo ëppal ba bëgg koo tëkkal ak yàlla mbaa ñu def ko ko muy moom te am na ci suñu biir ñu koy wax ñooñu dañoo ëppal ci xaw ci kaw ak ñàkk a xam yahud yi dañoo wàññi ci kaw ak xam ñi ëppal ci kaw ak ñàkk xam yàlla na leen da ngeen a wàññi ci kaw ak xam mu mere leen ëppal ci ñàkk xam nag moom du dal Cheikh Ahmad yi ndax xam na waaye wàññi ci kaw ak xam du ko dal wàññi ci kaw ak xam nag mooy nga juddu di sëriñ ñu jàngal la islam nga jàng ba am xam-xam xool sa intere fa mu féete nga féete fa laa di la say masala tëj ko ne tëj ko yemoo ci nag nga bëgg ne keneen itam na la ay masalaam tëj ko bu ko defee yàlla atte ay yahud yéen yépp loolu moom du mën a nekk yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne la tattabi'unna sunana man kaana qablakum haswan xussati bil xussati hatta law daxalu jura dabbin la daxaltumu'u qaalu ya rasulallahi al yahuda wa nasara qaala faman yonent bi nee na da topp sunna ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon ak tànk ba bu fekkonte ni am na ci ñoom ñii dugg di dëkk ci biir taxi ci paxi mbëtt da dugg ca paxi mbëtt yi dëkk ca comme ñoom saaba yi na ko ñooñu yahud yeeg nasaraan yee mu ne budul ñoom ñu dox budul ñoom ñu kon roy yahud mi ngi tàmbalee ci xam ba ne ar lank bañ a wax ngir sa intérêt roy nasaraan mi ngi dale ci juddu ci kërug diine jàngoo dara nga ne da wax ñii wax te xamuñu ñoo nasaraan yi ñoo bokk atte ñi xam bañ a wax ñoo yahudi ñoo bokk atte ki xam te wax nag moo nekk ci leen bi santaane bari waana loo xam ne yaa ngi koy wax ci sama jikko joo ci jikko alul kitaab moo la ko yóbbee jikko jooju mooy lan moo di coxor yàlla nee na wadda kasirun min alil kitaab yi law yarudduunakum min ba'di imaanikum kuffaaran xasadan min indi min ba'di ma tabayyana lahumul xaq ñi ñu jox téere day noonu nañu ngéej ñu delloo leen te ginnaaw ba ngeen gëmee ngeen doon ay yéefar ngir coxor gu nekk ci ñoom ginnaaw ba leen dëgg leere yow mi ne jàng diine di kilifa nuppi bañ a wax kële jàng diine di kilifa bañ a noppi di wax ndax ragal a bokk ci yahud ya tax mu di ko def ak def waru garam bu mu doon ci ay maamam tagg yañ koy tagg ak bëgg gañ koy bëgg ak sopp gañ koy sopp ak naw gañ koy naw ak déglu gañ koy déglu bu la énervé ba nga bëgg koo noppiloo loolu moom ak coxor la ci yow personnellement coxor nag jikko yahud la ak nasraan ngeen moytu ko dégg ngeen yàlla waxat na feneen ne inna allaha la yuhibbu man kaana muxtaalan faquran alladina yabxaluuna wa yamuruuna annaasa bilbuxli wa yaktumuuna ma aataahum allahu min fadlihi yàlla bëggul koo xam ne day bëngéer ngir fuukare muxtaalan moo di ba ngir faxuuran ngir fuukare yàlla bëggul man kaana muxtaalan faxuuran yàlla bëggul kuy kuy ba ngir ngir puukare ñi nga xam ne dañuy nay ba noppi bëggal bëgga digal nit ñi ñuy nay ni ñoom da ngeen yaakaar ne nay dafa yem rek ci am alal bañ koo joxe nay dem na ba egg ci am xam-xam lànk bañ koo jàngale ànd ak nit ñi war leen a wax yàlla ak yonent bi ak sëriñ bi nga yaakaar ne soo leen waxee yàlla ak yonent bi ak sëriñ bi ñu topp yàlla ak yonent bi ak sëriñ bi bala fa nga dëgg bal bi di def ay sax pale nay ci sa xam-xam bañ koo wax ña la ña ña topp di la déglu soo ko waxul keneen di ko wax dañ la fiy baax ci déglu ci koka ndax ñu xam lan bëgg yor sa xam-xam nay koo joxe nag doy na waaye keneen di joxe xam-xamam nga bëgg koo noppiloo ngir ngir sag nay loolu moom uññuural lay tekk ci baatu olof wa yaktimuuna ma aataahumullaahu min fadlihi nga ne li leen yàlla jox ngeen di ko nëbb yéen ñi day boroomi xam-xam nit yi li leen yàlla jox ngeen di ko nëbb lu tax ngeen di ko nëbb ah xam naa ne da ngeen a bañ bu ngeen dee taralal yi wax ñi ne xanaa kii de ci communicateur traditionnel yi ci la bokk xam naa loolu moo tax ngeen noppi noppi leen ci waxu ay mais wax leen nag nit ñi ni yàlla santaane wax leen nit ñi seen diine loolu lañ leen topp leen toppale wuñ leen topp leen loolu su ngeen nayee nag ba xam ne pat bañ koo wax nit ñi wala ngeen bañ a wax nit ñi ngir yaakaar ne su ngeen waxee ñoom ñi yeewu ku gëm yàlla gëm yéen leen jàpp ci yàlla di jàngal yàlla ak yeneen bi di leen jàngal suñ tuubaa may leen ko aasiye mu continuer loolu lañ bëgg a dégg ndegam yonent yàlla yi ak ñi nga xam ne yàlla daf leen a jox téere téere yi jaar ci yonent yi ñëw ci ñoom ñoom la yàlla ne woon su ma leen joxee xam-xamab diine na ngeen ko jox nit ñi te bu leen ko nëbb ñooña ñëw lànk bañ koo joxe nëbb ko muy yahuud yi ba tax yàlla mere leen képp kuy sëtu ci Cheikh Ahmad Bamba wala nga sëtu ci maam maaram nga xam ne xam-xam ak diine nga donn soo ko nayee joxe nëbb ko yàlla dina la mere na mere woon yahuud yi boo ca boolee nag kuy wax nga mere ko loolu moom leneen la wa is aqasa llahu midaqa alladina utul kitaba wa is aqasa llahu midaqa alladina utul kitaba la tubayyinunnahu linnaasi wala taktumuuna ñi yàlla jox xam-xam ca yahuud la mu leen sant mooy ñu jottali ko nit ñi te bañ koo nëbb ñi yàlla jox xam-xam ci jullit ñi li leen yàlla sant ak yonent bi moo di ngeen joxe ko te bañ koo nëbb kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi ta'muruuna bil ma'ruufi wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuuna billah falyuballigh ash-shaahidu minkumul ghaa'iba yàlla daf leen a sant ngeen digle baax tere bon jàngal nit ñi seen diine yeneen ci bi daf leen a sant li ngeen jot a xam ci diine ngeen jot lil ko ko ci jaami yàlla yi su fekkee mënu leen ko da ngeen a triandé seen borom ngeen triandé yeneen ci bi saa salaam nanguwuleen a jottali wooteeb yàlla bi nga xam ne moom la joxoon yonent bi yonent bi jox ko Sëriñ Tuubaa yaa ahlal barri yaa la bari ojooli bari bari saqaayi maa ila oyoobi seen maama ko wax seen maama wul waa Tuubaa rek de wul waa murid yëpp yaa ahla barri ween waa jéeri tuukuur yëpp Sëriñ bu fekkoon te ni nekk na fi ci jamono nga xam ne boo duggee ci internet bi wax ñëpp dégg la kon yaa àla barim jooju dina ko wax ci internet bi woote leen ni seen maam mbaa ngeen nuppi te koy woote ngeen bakko mu continuer woote bi ndax loolu la fi Sëñ Tuubaa nekkee woon yàlla dafa ñoo jëlal rankin ci buñ xamee bañ a wax nam jëlal rancilier ut ya nga xam ne dañoo xamoon dañoo xamoon bañ a wax wa is aqasallahu mithaqa alladina utul kitaba latubayyinunnahu linnaasi wala taktumunahu inna alladina yaktumuna ma ansalna min albayinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnaasi fi lkitabi ulaika yal'anuhumu llahu wa yal'anuhumu llaa'inuna ila alladina taabu yàlla nee na ñi nga xam ne dañuy nëbb li ma wàccee ci ak leeral ak ak njub ginnaaw ba ma ko leeralee ci nit ñi ba noppi mu nekk ci téere bi di alquran ngeen lank bañ ko wax yéen ñi ko lank bañ a wax yàllaa ngi leen di rëbb te képp kuy rëbb mi ngi lay rëbb lu dul ñi nga xam ne dañoo tuub sax madrifa yi képp ku ko bëgg a noppi loo ci woote bi muy wootoo sañ nañ laa wax ne su boohun mala ndax yàlla dafa wax ne képp koo xam ne kii danga lank bañ a jottali sama jottali gi yow yàlla da rëbb te rëbbkat yi war nañ la rëbb ah xanaa nga tuub génn ca dellu leen ci wooteel yàlla ak yonent bi di sëñ Bamba doon def su ngeen ko jombalee seen bopp ngeen noppi yàlla wax na ne إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ñi nga xam ne dañuy nëbb li yàlla wàcce ci téeréem bi di ko jëndee njëggu niiw muy dunduk àddinaakum koom loolu ngeen di lekk ci seen biir yi safara la sëñ Bamba nee sëriñ boo siyaar jox ko sa addiya te waaru la ba la nga ba nga fàtte li nga ko joxoon ñaata la booy joxeeti addiya bu fa dem bul ko siyaar yi seetil keneen sëñ bamba seen maam moo ko wax sëriñ boo siyaaree jox ko addiya mu ne pat nga ne pat mu ne pat nga ne pat laaju ko waxu la ba yàgg mën ne tabarkalla tabarkalla ngënum ngënum ngënum te wàcce baax na demal tey dikk kooku booy joxe waat romb ko sëñ bamba ko waxuma ko de te ki ko wax ci moom la sëriñ boo siyaare jox ko sa addiya te waarula ci yàlla jàngal la sa diine bala nga ko joxoon xamatoo ko ngir jàq goo jàq ci sa bopp boo dee ti siyaare bul dem ci moom boo amee sa addiya bul ko ko jox loolu suñ bamba moo ko wax kon sëriñ si nga xam ne ñu ngi takk seen ndigg tege ci siraatul mustaqim liggéeyal yàlla ak jaamu ko rekk tax leen a jóg ñu jàng ba ne ar mënoon a tëju ne pat seen teraanga di leen fekk ci ñu boole laxasu takk seen digg ne dann seen borom kenn ku nekk di roy sëñ Bàmba ca ko ma ne ñii ña ngi ca xam-xam ba ak woote ba ñii ña ngi ca jaamu yàlla ga ak tarbiya ga ak liggéey ba ñii nga ca mbindam téere ya fu neen nit yenn fa boppam yéen ñi dajale xaalis ak uti daraja rek ci gim seen daraja imaam continuer leen ci loolu te ñiy jàngale diine ci yoon wi ak ñi liggéeyal diine ci yoon wi ak ñi jaamu yàlla ba daanaka boo leen gisee defe ne ñi biñ fi yendu ci yoon wi ngeen baleen ci loolu ñu nekk ndax ci loolu ñu nekk ci la Sëñ Bamba nekkoon wasalaamu aleykum wa taalaa taala wa barakaatuhu dama ñëpp jéggal nag maa ngi balu ñëpp ak na ma ñëpp bal ak waaye man su ma gisee nit nekk ci dëgg ñu bëgg ko gotti maay raw gaynde ci bi ci ci kanam nit ñi ndax damaa bëgg ngeen may ko aafiya sëti suñ Tuubaa yi di jàngale diine ko wooteel yàlla ñii di bind ay téere ñii di waaraate ñii di gori tool di tarbi ay nit di leen jàngal alxuraan ñii di tabaxi jumaa jënd alal di ko ci def jël leen seen alal yi yéen ngeen def ko banque te takk ci soxna denc seen kër bu ngeen génnaat nag seen i doom donn ko te ñoom ñii liggéeyal yàlla ngeen bàyyi leen librement wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Cheikh Gueye rasul irada moo doon wax ak